xibaar bi muy xibaar bu neex ci bande FM bi rawatina suñu mbokk yi nekk ca D-Média Zik FM ak lii di Sen TV Cyril Bournays Ali Mandione daal nay am doom bu góor ci altine bii ñu génn mu nekk loo xam ne bànneex bu neex a neex la ndax ñi nga xam ñoom ñooy ay soppeem rawatina ñi koy déglu Zik FM di ko seetaan ca Sen TV rawatina mbooleem employé Sen TV yëpp mu doon loo xam lu neex la ndaxte soxna si nga xamante ni foo ko fekk rek dafay ree te it naan moom mooy séeréer bu nice am na benn bébé bu nice nekk benn xale bu góor ah, te it moom ak Moussa mbay gannaaw bi ñu ah, takkee sëy bi kon fi mu nekk nii am nañu seen bébé macha allah rek lañ siy wax yàlla bu ci cat dugg yàlla na doom bi barkeel nekk magum diine lislaam nekk mag bu am tamit euh, cër ci doomi aadama waaye tamit la ñuy wax rek mooy bu mu nekk koo xamante ni ku lakkale la ni yaayam bi di Alima Ndione